yaa maalikal mulki yaa man jalla al xawaadir irham jamii al yu tedd yi fi teew ñu ngi nuyu ñëpp di leen siyaare di leen baalu àq di leen ndokkeel ci bis tedd bi ñu gis ñu di ko waajal ñu leen di nuyu ci ndigalal ki nga xam ne mooy borom liggéey bi di fi jëmmi Serigne Touba ak Cheikh Mouhamadou Mountakha ñu ñaan bu yàgg fi loolu te ànd ak wér ma ñëw fii ànd ak kilifa yu tedd yii nga xam ne moo leen jox ndigal ñu ànd ci liggéey bi ñuy liggéey Serigne Touba te yàgg ko def ba at mu jot yeesalaat ko ñu nekkoon ci loolu kilifa ba tey liggéey bi nekk ci loxoom. bu fi Serigne Touba kon lu ñu fi wax rek ci ndigalam ak kàddoom ak baatam ci lañ koy waxee kon ñi ngi yëkkati am nuyoo di ko teg ci loxo gouverneur de la région de Diourbel di góor gi mbay ak mboolem chef de service yi fi teew yëpp di préfet bu Mbacké ak sous-préfet ak mboolem ñi nga xam ne ñoom lañ seq liggéey bi di chef de service yi ci région bi ak yi wër région bi di leen di yóbbante nuyoo ci ci nga xam ne moom lañ fi teewal di président de la république Macky Sall moom mi nga xam ne moom ngeen teewal ci jotaay bi te li ngeen war a jox ci kàddu mu war a jaar ci ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye itam ñu di ko du moo àgg ci moom kon ginnaaw bu ñu nuyoo sant leen gërëm leen di ñaan bis bi ñuy bëgg a tàbbi di Màggal Tuubaa li ma ko waxee woon bëgg démb rek màggal gi moom borom waajal na ko ndax waajtaay wi li ci ëpp mooy ginnaaw bu mu ci doxee ndigal da cee boole waale li tax liggéey bi yomb loolu moom ci loxoom la nekk moom lañ ci yaakaar te xam nañ ni am na suñu kilifa bu baax bu daa wax ne kuy defaral ñëpp seen bi sa bis mënta waxaale kon màggal gu xam na ne borom koy defaral boppam li ñu ci war nag nit ñi ko seq mu nit ñi koy saytu ak yéen ñi ñu ko seqal mooy kenn bu ci ne xool lam jàpp ne mooy tax liggéey bu baax lay tax liggéey bu jekk mu def ci yitteem def ci jomam def ci pëstéefam def ci ak doxoom kon gouverneur lii nga wax dégg nañ ko bu baax kon ñu ngi la ci sant di la ci gërëm di fas yéene tàbbi ci liggéey bi di xam lay màggal gi day mbir mu màgg a màgg lu rëy ndax xew-xew bu ñu toll bariwul ci adduna si ndax yi nga ko mën a takk leen néew Afrique amul bu ñu toll Sénégal moom amut xew-xew boo xam ne lu mat juróom million ñu ngi ko ci xayma te at mu jot foo ko natt mu weesu ko kon boobu xew-xew képp koo xam ne yàlla suñu dogal la mu nekk ci sa biirum réew mi sa la sab sag la moo xam nga bokk ci yoonu murit moo tax moo xam nga di jullit moo tax moo xam nga dëkk ci réew mi sax te bokkoo ci lislaam kon képp ku rek na nga xam ne màggal gi sa bisu ndax bisu bu Sëriñ Tuubaa wax ne ne ko ñépp sant la yàlla la ci wàllu li ñuy natt ci xayma ci wàllu koom-koom itam muy jural senegal njëriñ yu bëree bëri kon màggal gi moom rek mooy feet bi nga xam ne réewum Sénégal lu ci perte waaye da ciy gañe kon nag jàpp naa ne dayo bi ñu ko jox ak yitte bi ñu ko jox rek waris na ko yokk waris na ko jox lu ko ëpp ngir bu fekkente ne bu fekkonte ne amuloo njëriñ réew mi itam te xam ne taalibe Sëriñ Tuubaa ñooy bàyyi ko fu ne ak jullit yi ñëw di màggal si Touba kon loolu mboolem lu ci war rek waris na ko def rawatina nag muy loo xam ne boo doon xool ci koom-koomu Sénégal wax nañ ko waxati ko ko jëru del siwaat waaye amal na njëriñ Sénégal amal na njëriñ yëpp comme lépp lu yëkkati def ko ci màggal gi yeyoo na ko ndax ab doyo moo àgg foofu kon nag yéen ñi ñu ko seqal ñu ngi leen ci soñ bu baax yitte ju ci daa def ñu kon ko yokk ndax bañ a yem rek ca defoon naa daaw kon la ma defoon daaw du ma ko weesu ndax loolu boo ko defee rek manqué ma day daal dugg ndax mënoo xayma ci defoon daaw mu mu toll ci yem wala mu cëkk boo ko fa yemalewaatee bu déwénee day manqué kon loolu mboolem chef di service yi fi teew na ko ñëpp sóoraale rawatina ren màggal gi dafa tàgguwaat ci loo xam ne waxoon naa ko fi daaw daaw jéeg sax daaw fi jikko la ne nañ ko bàyyi xel bu baax ndax Tuubaa màgget bi du doxaat ñaari at ñett tàbbiwu ci biir nawet bi kon ren jii itam incha allah bu àndee dogaloo suñu borom bu fekkente ne nawet bi màgg gi tàbbiwu ci biir itam day fekk muy jeex kon te fii mooy wax ak yéen bi mu tawee rek Touba mbedd yëpp fees na ba kenn amatul foo jaar kon loolu faw ñu sóoraale ko ci xool nu ñuy fexee ba ndox mi génn ak fexe ba saafara loolu ndax bu ñu ko saafarawut dana metti ci nit ñi te dana juru ay jafe-jafe gàllankoor yoo xam ne wàllu ñàkk sécurité mën na saa juddoo wàllu ay wér di mën na saa juddoo ndax nawet xam ngeen li muy àndal ba ca desaat mooy wàllu ndox mi ndox mi itam forage yu fànnoon wax ne ne ñu ngi koy saytu di ko defar waaye waris naa fexe ko ba góorgóorlu ba li ci fànnoon fànnoon ci forage ñu defaraat ko waaye li ñu mën a yokkaat ci forage ak excitation réseau bi ngir mu mën a àgg ci quartier yi nga xam ne ndox mi àggu fa ndax Touba dafa réer ndax at mu jot ni muy màggee dafa ëpp moo tax foo ko yamal de bu déwénee am na ñoo xam ne danañ dem ba ay kilomètres te am ndox loolu itam te ba ñu tox ci seen dëkkee yaakaar xet lu ko ak yërmaane boo tax ñu def ba ca desaat it mooy wàllu courant loolu dëkk bi ñu ngi ci sàkkuwaat ni ñu ko daa sàkkoo ci yéen daaw lu ngeen ci mën a jàpp rek ci lëndëm bi mu wàññi ndax lëndëm fu mu bari rek xam ngeen la ñuy àndal ci wàllu ñi nga xam ne euh, bëgguñoo def lu leer walla ñu nekk ci ak jubal kon loolu itam ñaar bokk na ci yi ci gën a fàrta bi ci desaatit mooy wàllu yoon yi nga xam ne xëy na ren xawoon naa xat waaye luñ ci mën a góorgóorlu ci engagement yi ñu fi jëloon daaw ci quartier yi nga xam ne waroon dafa àgg ñu fexe ba def ci yitte. fexe ba fii ak màggal bi ñu ngi ci man a def góorgóorlu ñu def ko li ci mën a àgg li ci mënta àgg itam ñu fexe ba bu màggal gi jàllee mu bañ taxawaay taxaw ñu continué ko loolu daal moom mooy yi ci ëppoon solo ci bi moom xam nañ ni ñu ko defee daañu ko di kon loolu amul lu ñu ci soññat kon loolu rek dañ amoon ci liñ ci wax xam naa bu ñu joxee gouverneur mu tàmbali réunion bi bu ko defee bu préfet yi rapport yi nga xam ne moom lañ defoon Mbàkke ak fi ñu war a jëmaat lu ci war a dolli ko rek sëriñ Ousmane Mbàkke mi nga xam ne mooy coordinateur comité bi dana wax mboolem commission bi itam képp koo xam ne war nga jël sànni ko wax nga sànni kàddu yi nga xam ne war nga ko leeral bi ci des it mooy euh, commune bu Touba Abdoul Ahad Ka moo itam lu mu ci war a leeral ci wàllu li nga xam ne moo aju ci wàllu liggéey bi ci biir wax ji moo tax mu leer bi yeneen yi ci des mooy kilifa yi nga xam ne teew nañ fi te ñu seq liggéey bu jeexee ñoo itam kenn ku ci ne li nga jàpp ne mooy def defar gën a defar liggéey mu gën a baax ñoo itam ñu sànni ci kenn ñu àggale liggéey bi ñaan ba dégg na jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ci loolu moo tax ñu gën ci yàgg ci waxtaan jox ñi nga xam ne ñoo ko amee ñu wax lan lañu naan li ñu mën a jàpp daal mooy kenn ku ñoom kenn ku nekk ci ñoom dina góorlu ba benn yoon du fat yoon wu ne oto mën caa jaar loolu nag soxal nañu lool ndax dafa bari ay jeexital ci circulation bi ci sécurité bi ci ndox meek ci lépp <coughs> pardon donc loolu la ñaan yàlla waa góor góorgóorlu ci ba site de yi di dox waaye ñëpp ñi nga xam ne tam war nañ joxe ay hydrocureur ñu jàppale ñu ba nga xam ne benn yoon du fat suñu objectif daal mooy benn yoon du fat neewuñu ne benn yoon bu mu am ndox mais benn yoon du fat ndax am ndox loolu nag am wax naa nañ ci bu baax dinañ ci góor góorgóorlu beneen bi mooy wàllu ndox mi nit ñi war a jëfandikoo ndax xewu diine la yem ak jamonoy nawet jamonoy nawet daw day tàngaay la aussi te xewu diine lislaam dafa soxla ndox xewu diine fa mu laaj ndox fu nit ñi bari dajeendoo fa tam fa mu soxla ndox loolu ñu ngi ci góor góorlu waaye ñu ngi ñaan ñi nga xam ne ñoo ci taxawee ak entreprise la ñuy liggéeyal ak fournisseurs ya ñu baral seen loxo ñu baral seen loxo ba nga xam ne li ñu am ci forage lépp di dox mooy fooba Touba am na benn forage li ñu bëgg mooy bala ñu naan camion citerne bala ñu naan bâche yooyu yëpp ay ndimbal yu war a ñëw dooleeku ci mooy li ñu am d'abord li ñu am lépp mu mën ñëw daal jëriñ mu mën a dox loolu am nañ ci yaakaar te loolu mooy suñu objectif comme ni ma ko waxee ci yoon yi léegi benn yoon ba ne fatt benn yoon waaye forage yëpp tam di dox bu ko defee su ñu amee loolu te yaakaar na dañ ko am ci tànk yi ñu taxaw plan d'action bi nga xam ne évalué nañ ko fii ci salle bii ak OFOR directeur général maa ngi koy gërëm euh, bu ñu doxalee plan d'action yooyu am 100 citernes ak 80 bâche d'eau boole waa eaux forêt yi ñu war a dolli ci ay ay citernes am naa yaakaar ne xëñ na problème bi bu jeexul tàkk tam dina wàññee bu ku nekk mën a jot ci ci ndox mi loolu am nañ ci yaakaar xanaa ngeen ñaanal ñu ci rek yàlla mottali ko lu jëm ci Senelec am na ci wàll ndaxte boo ne da ngay pompe kay électropompe électro mooy lu courant di dawal kon Senelec bu wàcceewul euh, descente bi kenn du mën a branché pompe bi moom itam nee na fi mu nekk nii Euh, bu ñu leen bindoon rek ne leen lii la ñu bëgg rek ñoom daal di ko dogal loolu nag dëgg yàlla maa ngi ciy gërëm seen di leen gërëm aussi seen directeur général ci vraiment ni ngeen ñu bëgg jàppale bëgg ko jàppale maire ba loolu mën a yomb euh, beneen bi mooy ñi nga xam ne ñëpp war nañu indi ay électro ay euh, motopompe ak ay hydrocureur maire bi ci la opérateur économique yi si lañu donc ak ONAS tam si lañu ñu daal di ko indi ba nga xam ne dara du mën a fatt dara du ñu mën a gàllankoor ñu am yaakaar ne ci ñaari wàll yooyu daal euh, incha allah yàlla mën nañu ci dafa sutura bu fekkee ne liñ fi wax yépp ku ci nekk euh, li nga ne moom nga nar nga def ko taxaw ci góor góorlu ci te xam ne du yomb ndaxte lu màggal gu tombeek nawet du yomb mën ngaa pomper léegi mu tawaat léegi waaye boo amee Pastef comme sëñ Bat Abdou Khodos li mu wax am ci Pastef am taxawaay yaakaar naa ne te xam sa objectif xam li nga bëgg xam si nga jëm yaakaar naa ne li nga bëgg dina mën a li nga dina mën a am ndaxte ñun du ñu teg kenn lu mu mënul suñu borom sax bi ñu sàkk teguñu lu mu mënul kon bokk ñun yi nga xam ne ñooy autorité suñuy collaborateur dëgg yàlla duñu leen teg lu ñu mënul kon bokk euh, loolu maa ngi ci ñaan ku ne góorgóorlu ci beneen bi mooy wàllu sécurité il ay millions de nit daje ci ay fan yu néew ah kooku laaj na sécurité waaye ku dégg ni euh, le colonel Sarr waxee ak commissaire ak euh, ñëpp ñi nga xam ne ñu yor wàllu euh, kaaraange am naa yaakaar ne màggal gi dina am sécurité bu doy ba nit ñi mën a ñëw ci jàmm jaamu yàlla ci jàmm dellu ci jàmm loolu nekk na loo xam ne lu ama am am solo wax nañ ci wàllu yoon wàllu yoon tam boo ko tuddee di nga toujours xëj na plan de circulation waaye di nga tudd Ageroute parce que yoon wu war a baax ñoo ko xam yéen war a defar ñoo ko yoon woo xam ne dañ ko war a jagal balay màggal gi tam lu am solo la parce que bu ñu mënul am sax yoon yi ñuy gënal yoon yi nga xam ne yëpp tane na ñu jagal ko ba nga xam ne bu bu circulation bi naree xat dina am ñoo xam ne dinañ mën a sàkk pexe mën caa jaar loolu tam maa ngi koy ñaan Ageroute yoon yi ñu war a profi reprofiler maanaam laalaat ko ba nga xam ne circulation bi day tane en attendant peut-être fekk déwén ñu mën kaa gouverner loolu tam bu ñu bu ñu ko xeeb ndaxte euh, foo xam ne nit ñi dañu war di dem di ñëw euh, kenn du xeeb yoon lu mu gàtt gàtt ak nu mu mën a mel buñ ko buñ ko xeeb dina mën a am lu mu apporter loo xam ne xëj na bu fa nekkul woon mu gën a metti loolu ñaan nañ ko fa dëgg yàlla ñu taxawal ñu ci jàppal ñu ci bu baax euh, maire aussi fa dëgg yàlla question yi nga xam ne yu bëri yoo xam ne laal na maire bi joxe na ci ay ay ay ay ay jël na ci ay dogal ne dina ci taxaw moo xam affaire service d'hygiène gis ngeen ko euh, dina ko jàppale euh, ci euh, boo gisee ci wàllu kaaraange dina jàppale police pour déjà fal nañu war a jox GMI yi daal di fa yóbbu courant n'est-ce pas loolu yëpp nekk na loo xam ne ay ndimbal loo xam ne ak suñuy service fa dëgg yàlla dina leen dimbali ba seen liggéey mën a ñoŋ parce que euh, manifestation la boo xam ne événement la bu nga xam ne euh, ñoom service yi dañuy laaj ku ñëw jàppale leen bu baax a baax a baax a baax am naa yaakaar ne daal su loolu taxawee transporteurs yi góorgóorlu xool ni ñuy dawee xam ne ci xew diine la ñu jëm te kenn warta lor kenn du ma ne sax ñoom ñooy loraa ñooy ñooy ñooy loraate déedéet ndax bëgguñu ko ay borom kër lañ dem ay ay njaboot lañ waaye ku nekk gën a góorgóorlu xool ni ngay doxee Euh, euh, eaux et forêts moom dama koy gërëm parce que déjà autorisation yi ñëw na ba pare waaw loolu mu def daal ni mu defee man neex na ma lool maa ngi gërëm ministre de l'environnement n'est-ce pas euh, déjà autorisation yi agsi na mu ngi sama bureau lu mat ay ñeenti fan a ngi nii ñëw na ba pare pour meek yooyu ñoom pare nañu kon xam nga kon di waajal màggal gi ñoom ñoom foog naa ñoo yéen a jëkk a pare kon bokk moo commandant maa ngi lay gërëm di gërëm say say say say say say patron ne leen daal ñun comité d'organisation bi man mii sama wàllu bopp kontaan naa bu baax a baax te yaakaar naa lu ñu man rek anticiper loo man rek léegi rek def ko léegi rek ndaxte problème yi war daxaar loolu maa ngi leen ci gërëm bu baax a baax di am yaakaar na ne aussi euh, waa santé euh, seen i jumtukaay dina dina yokk bu baax a baax ba ñu mën a taxawee loolu ndax euh, nit ñi lu ne dañ koy ñëwaale ñu am yaakaar ne ku fa ñëw incha allah doo fa indaale luy lor kenn euh, doo génnewaale aussi jàngoro ci ci màggal gi ba di ko mën a yóbbu fenn ngeen xam ne kon daje yooyu ñuy daje daje yu am solo la daje yoo xam ne dafay dajale ndoo ay millions de personnes lu am solo la kooku santé mënta ñàkk ko parce que nit ki day ñëw nit ki day ñibbiwaat fa muy dellu te si si day euh, dellu ci réew mi wala ci bitim réew donc ku nekk xanaa kay boo fa jëlewulee wér waroo fa jële leneen te loolu euh, naam ñu ngi ñaan sëñ bi mu ñaanal ñu parce que am na yàlla yaakaar ne sax ku fa indi jàngoro boo ko ñaanee yàlla mën na ko faj waaye si suñu xam-xam bu gàtt ñu fexe ba nga xam ne kenn du fa jëlee dara loo xam ne mën nga ko dem euh, feebar wala dara luy lore yóbbaale ko euh, fen loolu nag day fekke Euh, ñu def prévention service d'hygiène fa mu war a pomper mu pomper ko waa santé taxaw ba lépp loo xam ne war naa mën a lor doomu aadama wala jàngoro bu nu mën la dimbalee ba mu faju mu faju ba euh, li nga xam ne ñëpp dañ mën a ñëw màggal ci jàmm delluwaat ci ci ci jàmm. loolu daal nekk na ay points yoo xam ne euh, ci ci gàttal ginnaaw ba ma gërëmee commerce gërëm élevage ci seen taxawaay bi ñu fas yéene taxaw nekkoon na ay poñ yoo xam ne daal wax nañu ko fii. ci màggalu ren gi di wax ne noonu la ñu bëgg a taxawee ren incha allah euh, ci wàllu kaaraage wàllu commerce ak wàllu santé ak wàllu sécurité ndox meek euh, yoon yi te am naa yaakaar ne bu loolu lépp taxawee suñu borom dee ñu dimbali ba ñu am màggal gu mucc ay si euh, day day yonte la Muhammad sallallahu alayhi wasallam si barke Sëñ Tuubaa mu ñaanal ñu ci ba ñu am ci ndam lu kawe kawe kawe wu wees suñu jot loolu daal laa ne woon dinaa ko ci li euh, Touba ci kanam tam di leen gërëm di leen sant fu dëgg yàlla ndax euh, bi ñu fi defee réunion d'évaluation fii euh, gisoon nañ ne am na ñetti forage paan te man sama objectif fesal naa ko bëgguma ñu dem màggal ak forage yu paan ñu am ñetti forage yu paan directeur OFOR si jotaay bi fexe na ba lijjanti ñu benn forage sa suba ga la ñu monté astafurlah benn pompe ba pompe ba ñu monté ko kon mbokk moom mii directeur général OFOR euh, monsieur Ndaw maa ngi gërëm bu baax a baax a baax a baax ci taxawaayam xam nga tey bàyyi na lépp te dafa jege voyage ñëw fexe ba bokk ci CRD bi tey euh, loolu engagement am man mën naa ci wax lu bëree baree bëri kon bokk ci jotaay bi la fexe ba ñu am benn pompe waa euh, Touba ca kanam tam utal ñu beneen pompe bi nga xam ne tey mooy daawal forage bu Bagdad te dama leen ne woon sama objectif mooy avant màggalu sëñ Ba euh, sëñ Abdou Khadre doon na forage bu Bagdad baax parce que biñ ma fésalee fii forage boobu li muy tekki ci màggal gi laa nekkoon ñun nañ fexe ba forage yu euh, sëñ Abdou Khadre euh, fële ki baax avant màggalu sëñ Abdou Khadre loolu réaliser nañ ko loolu réaliser nañ ko si ndimbalul Touba ca kanam kon boog tey population yi. ñu ngi ci ñu ngi ciy jariñ forage ba nuy université ñoom itam dem nañ ba commander nañ pompe bi bu pompe bi xëj na deux semaine la ñu waxoon ne dina ñëw te bañ fa demee léegi mat na une semaine kon moom mën naa wax ne dans une semaine pompe boobu dina ñëw ba ñu def ko ci université kon boog vraiment Touba sa kanam maa ngi leen di gërëm te loolu na àddina di doxee loolu mooy partenariat public privé PPP loolu àddina dafa soppeeku léegi Euh, communauté bi sax day ñëw di dugal loxoom ci ni état di doxe di ci participer population yi privé yi doon noonu moo tax état dafay ànd ak communauté bi waaye ànd ak aussi privé yi sax di liggéey loolu jamono moo moo toll foofu gis ngeen am na ay baat yu bees ñu naan responsabilité sociétale d' entreprise entreprise yi léegi dafa yoo xam ne ay ndimbal yoo xam ne dañ koy lañ koy joxe loolu daa bokk ci liggéey bi léegi yu bees la yu xarale loo xam ne Euh, dafa law ci àddina ONG yi association yi ñoo ñëpp dañuy bokk ci ñi nga xam ne dañuy bokk ci ñi ñu réew mi di doxee parce que dañuy wax ne état mënul lépp état mënul lépp état sax warul def lépp booy xool waaw nit ñi dañu war a dafay wane ne yow ci ci ci ci réew mi nga bokk boo ci sóob sa loxo même boo olof sax dina wax ne kenn du mën lépp def lépp sax voilà nit ki loolu participation lu mu wane ne moom mu ngi fi buñ ko ragalee ginnaawam mu mën a ragal biiram nag loolu yëpp bokk na ci li nga xam ne dafa lay gën a boole ci réew mi waa loolu vraiment ñu ngi koy gërëmee waa Touba sa kanam gi ginnaaw ba ma remercier maire aussi pour appui bi muy def euh, yëpp jëmale ko ci màggal gi euh, jëmale ko ci comité d'organisation bi. di gërëm sëñ Ousmane bu baax dëgg yàlla réunion yi ñu fi def ak yëpp ñoo ànd visite bi may def yëpp moo ànd ak ñun wër forage wër point yi nga xam ne dafay taa yëpp ba mu ba mu jeex. mu ñaanal ñu ñu mën a delluwaat suñu ku ci nekk euh, sa sa sa biro loolu aussi maa ngi ko koy gërëm sëñ bi bu baax liggéeyam suñu ànd vraiment ànd bu rafet la mi nga xam ne vraiment ñu ngi koy rafetlu di ñaan yàlla dëgëral ko yàlla jàppale ñu li ñu xam ne bëgg nañ ko yàlla may nañu ko ñu am màggal gu am taar bu bu bu rafet ba nga xam ne euh, du mel ni benn màggal loolu dañ ñaan yàlla dañ ko ñaan sëñ Tuubaa dañ ci liggéey yéen ci góor góorgóorlu ba nga xam ne niñ ko anticiper tàmbali liggéey bi balay CRD bi suñ ci pare itam euh, comité de suivi bi noonu lay continuer di ci liggéey guddeeg bëccëg ba màggal gi ñëw am naa yaakaar ne daal buñ ci liggéeyee noonu yàlla mën na ñoo defal sutura loolu daal foofu laay daaneele sama kàddu